asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu wala mën na leen sax good morning ndax nag eh, tey xam ngeen ni plateau bu spécial la ñu am fii ci biir eh, Equivox TV tey nag ñu dalal ndaanaan boo xamante ni nee naa leen surprise lay doon ci ñi nga xamante ne rek ñu ngi ñuy suivre mais laataa may ñëw ci gan gi laataa may ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy ndaanaan bi damay nuyu ki nga xamante ni moom mooy ah le présentateur le journaliste eh, incontournable ki nga xamante ni moom mooy Pape Ousmane Cissé tey mu ngi nii ci plateau bi ànd ceeg man Pape Ousmane good waaw tey moom yooyu ñu wax. a ñàkk dalal doomu Sénégal la donc nag ñu bëri dañu yaakaar du Sénégal Sénégalais la. c'est vrai que ni dafa épouser un moo tax ñu koy aspiré un peu ak doomu États-Unis waaye du Sénégal la. tey nag ñu koy dalal vraiment Mariama tey diversification bi nga def ma neex. tey du ñu wax politique du ñu wax xeexoo xiiroo nangam noo tey moom culture la. on va parler de culture. on va revenir un peu ci parcours am. Mhm. kan la ak lan moo ko indi Sénégal jamono ji parce que mu ngi liggéey bu am solo man maa ko découvrir ah sama cousin. d' accord mu albumam lu mercredi bi passé. Mhm. Euh, mu ñëwoon fa ci laa xamee ni ndekete ay xarit lañu dëkk nekk xale. Euh, xaw a nuroo parcours ñoom ñaar. parce que ñu mhm. fàttali ne album mu ngi tudd grand appel on aura l' occasion incha allah moom ñu ko fii. di baaji ñu gën ko xam ci Figo. ah euh, euh, su ko defee incha allah mu gën a yaatu tey nag kenn ci ndaanaanam yooyu dañuy ñuy dalal euh, ci ci waxtaane li nga xamante ne mu jëm ci carrière am kon tey moom incha allah. Mhm. ñu doon xaar ci ay politique ak ñoom seen moom dina mu koy waxee déjanté. ayca on va parler de mhm. ah, ngi lay nuyu bu baax nag di kontaan ci mbokk yow am na solo lool loolu kooku nekk. di nuyu également ñi mu àndal. waaw waaw mais ñoom ñu ngi ñëw surprise la surprise ah. la dinaa leen <laughs> ci plateau bis ni gi tey rek lay daal di xewee nag tey fii ci plateau bi nee naa leen surprise la ndaanaan la boo xamante ne tey ñu ñoo leen koy andil eh, li nga xamante ne moom mooy seen plateau bis ni ki tey bis ni ki tey nag day dalal gan ndaanaan ci ñu koy wax eh, Marius Marius Lucius ah, ci tur bi ñu ko gën a xamee mooy IBE waaye bi i e. e. ñu ngi lay ah. dalal ci biir plateau Equivox TV donc bi communauté bi pour nga gars gën ma ràññee gën ma xam donc euh, maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan internet yi waa Equivox TV. Mhm. di remercier di remercier su ma daanaan bi toog fii koo xam ne day passé dañoo bokkoon benn plateau. mu mhm. impressionné ma lool. macha allah ma andi mhm. ay surprise yu bëri pour ngeen andi américain ak best influenceur international. ku euh, mhm. euh, am na solo gis naa loolu la léegi léegi rek wax nañ leen ko ci seen euh, biir plateau mais laataa ñu dugg ci li nga xamante ne rek mooy monde culture bi nga nekk wax ci musique bi dañuy des ci li nga xamante ne moom mooy Sénégal waxtaanee ci actualité bi xam naa du ñàkk yënga ko mhm. diggante violence yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko diggante mhm. politique bi un peu ci élection yi tey jii yow lan nga lan nga ci xamante ne rek moom nga ci jàngal. Ah, lu ma siy jàngal xanaa lancer message lancer mhm. message wax gars yi nañu bàyyi xel parce que Sénégal exemple si monde bi. tey jii ku dëkk Sénégal jàmm lay dëkk ku dëkk Sénégal teranga lay dëkk. Mhm. donc moo tax ku ñëw Sénégal doo fa mës a da ngay ñëwaat mii américain man li ma jot a jàng daal. mii mhm. américain mii étranger ku fi ñëw loolu dalay neex. donc violence bi nañ ko jéem a xoolaat bu baax. ñu xam ne fii lu ñu yàq suñu boppam lañ ko yàqal fii ku ñu rey sa mbokk nga rey ñun ñëpp fii Sénégal ñëpp. rare dëkk si monde bi boo xam ne. Mhm. musulman chrétien dañuy dëkk si jàmm. Mhm. kenn ku laajte yow lan nga foo jógee ñu ñëpp ay mbokk la donc euh, ñu dalawaat xel yi am na solo. Mhm. Euh, ñu gën a yaatal ñu tudd sax euh, mbokk mi ak teranga bi man loolu laa mën a wax quoi. violence bi ñu jëmal dara lu dul yàqal ñu ak wàññi ñu ak néewal ñu doole. ay Aïcha am na solo loolu Pape Ousmane mais laataa ñuy dugg ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi gën a yaata rek tey dama la laajoon benn question ne kan mooy YBE lan nga may tontu. YBE benn rappeur la bu ko euh, mm. e kenn ko am fit la koo xam ne ragalul mm-hmm. lu mu gëm moom mooy ak foo mm-hmm. mm-hmm. parce que YBE lu mu gëm moom mooy rêve boo xam ne yàlla moo la ko jox. yow yaa ko am yaa ko moom. sa musulman boppam bu ci xaar kenn bu ci demandé permission kenn. Mhm. mooy def mooy jéemal ko nan nga koy réaliser. Mhm. nga réaliser ko donc waaye bi mooy kooku parce que jógee na ci basket dem nekk producteur signé ay artiste américain ak mhm. ko africain. gagné <laughs> nekk xale seen plateau yéen daanaan ni ngeen ngi sigil. ko mm. jéem am na solo mais dellu si waatal ñu tuuti rek ci li nga xamante ne moom mooy parcours boobu nga xamante ne yaa ngi ko doon euh, amal ci wàllu basket bi tey nga dooree woon fii Sénégal euh, après nga dem fi nga xamante ni moom mooy euh, à l'extérieur lan moo andi rupture boobu noonu ci biir carrière boobu nga xam ne moom nga njëkkoon taamu balaa ngaa dugg ci wàllu musique waaw dëgg la basket nag sama laaj woon tey ñi ma xamoon ci basket yëpp suñu après basket sax dama ciy parce que moom rek laa doon waatee loolu tax na ma bàyyi école tax na ma jëlee samay famille tax na ma ñàkk mbokk yu bëri. Mhm. li ma wax sànq rek rêve soo ko xasee ba am rek pare xamal di ko di yomb te si du jaamu borom mhm. dina métti dina tar donc euh, jógee Casamance te man defi la man lépp defi la sama live defi la. Mhm. rek. naa du ma dellu ci seen profond mbir yi. de dellu si wax ñu wax ñu dañuy waxtaan ñu waxtaanee ko. mooy uh-huh. yàq. Mm. defar moo gën ko donc euh, dakaar ay jamono xamu ba léegi nag de ay jamono jógee Casamance problème problème moom biir Dakar problème bu rëy moo aay aay aay dañoo gis opportunité boobu noonu ndax fi nga jógee fi nga bayoo ko maanaam ba bokkoon si ñoo xam ne dañu bëggoon casser carrière euh, barrière boobu noonu. Mm-hmm. naan foo dem. soo fa jógewul da nga war a pare travail deux fois plus trois fois plus que li nga jógee. Mhm. mën a imposer sa bopp loolu laa gëmoon mais bu ma ñëwee Dakar xatal nañ ma trop sax mais ñefe naa ñefe naa dañ ma nangul mais. le mhm. problème mënuñ woon jox buntu euh, équipe nationale li ñëpp bëggoon. Mhm. représenté sa dëkk saa ñu dugalee sama tour dañuy génne sama tour biir fédération saa ñuy envoyé sama lettre sama kër ci duñ ma ko jox dama koy yëg après loolu taxaw na ma quitté équipe ba équipe ba ma demee ba gëm ni ki ñii bëgguñu ma jox li ma moom. ba jël samay bagage def Maroc dama demee Maroc yi ma si benn équipe deuxième division ne ànd la naa ne euh, yóbbu première division ñoom sax dañu doon ay dirigeants yi maa ngi koy fàttaliku te Sénégal moo koy yóbbu mooy mooy okk suuf ne dañuy de <laughs> soo deful li nga mhm. gëm naa li may liggéey donc ci lañ ma jox xaalis ma laaj yëpp amuñu woon sa coach coach bi coach pes ba woon donc man maa sélectionné joueurs yi année boobu ñu dem ba première division ba yéeg première division ñëpp dañoo yaakaaroon di ko américain la parce que bu may nekk ndaw dama ko doon fukki ñu ko seetaan bëri bagaas nag. <laughs> waaw moo tax gis nañ ko. waaw waaw léegi ba léegi donc du <laughs> coup def naa ko lu rëy. Mm-hmm. ba ñu ma bind si journaux yëpp loolu nag moo ma tàngal ci la ma américain commencé woo euh, Espagne woo ma Amérique ci laa dem Amérique yegg xam naa ñu yaakaar dikki damay àndaale équipe bu bëri benn nit rek moom moom sama ñëw moom day simple. dama mhm. yegg see ma def test pour jouer seen deuxième division NBA ma defee test jouer deuxième division ma jomal gars yi gars yi jël ma première division directement Spurs San Antonio NBA. affaire bi nag bett ma du ma nag de damaa xam. <laughs> ma sélectionné euh. ma mm-hmm. ñëw ñu nuyu ma ne ma foo jógee a ne Ziguinchor ñu ne ma fan ma a Sénégal gars yi wéy ko dëgg suuf mu nekk yow a jóg fi ñu gis day war mu ne noonu Afrique laa jógee gars yi ma xam nga maay kat ma ne ko yow yaay ma ne maay si police non waaye ma ne ci dafay foog man rek ma conteste ma baax di mm-hmm. la ma ne xëy dañ la bëgg a jël si police bëgg la ma daal la fa <laughs> donc li nga galéré Sénégal bëri na trop ba nga xam ne. Mhm. soo tamee lu bon dama lu jafe lu métti nga ñëw ñu tegal la parquet yu ñeex lamp yu leer nañ. wala mhm. yu ci ngay toog ñu jox ay jus si biir jox ay serviette. xam nga ma <laughs> ah, blessure ma première ndax. Oh. boo fenn foofu la. Mhm. Ah, te ñun da ngay da ngay glissé. kon sooy bassin da ngay calculé glissement bi. Uh-huh. mais foofu la <laughs> su ma jeune nañu nekk. am na ay séer ñu ma opéré ma mu ñëwaat. Mhm. si ma encore gaañuwaat. Oh. même gaañu si lañ ma ne soo amaatee même blessure bi da ngay a doo dox. donc a obligé de quitter. Oh. affaire mhm. mhm. ba gëm ma ba may ñaanal ba di ma jël comme exemple si ñu bëri. donc man gaañal la quoi wéy di donc noonu laa jógee ci basket. mënatu woon nekk ci basket parce ci génnee métti na ma trop. traumatisé dama benn star léegi pour fàttee loolu noonu. Mm. ma changé sama bopp dugg si musique sama second amour doon signé ay américain label ubbi label signé ay américain di leen siwal. Mm-hmm. bu ma gisee ci maa ngi di siwal ba xam yoon bi ma ne non amul fu ma jógee li ngay gis nii. Mm-hmm. ma jàng américain ni mu def ba imposé si monde ma xalaat Sénégal problème yi ñu am yëpp. Mm-hmm. te ak talent yi ñu am Sénégal ak xam-xam bu ñu am Sénégal. ma ne suñ ko jëlee transformé ko comme gars yi mën nañu am talent ci laa ñëw Sénégal commencé sénégalais. mooy problème bi ñoom ñooy bañ ñoom suñu waxee rek public bi day topp mhm. ñoom solution bu ñuy noppiloo homme de grand bu ñu bañ a wax comme ça public bi mën a jugé ñu xool baal li ñuy def neex na leen ñu jël jigéen xam nañu Sénégal góor defante ak jigéen <laughs> dañuy daw toog yëpp ñu ngi def. trop mën a donc loolu suñu lu ñu moom la suñ ko dooralee. Mhm. day mel ne afro bi nigérien bi ñu mel donc il faut que ñu gën ci nekk. Mhm. donc mais comme wax liggéey la étape la maa ngi fi depuis 2015 ñu liggéey. Mhm. moo tax tey si di def ay concert ay li ma andi fii nii chaque année may ànd ay rapport américain a découvrir loolu américain yi li am fii nii. ubbi porte boobu bi fii nii en même temps tamit wantam culture bi tamit. employé nañu à travers man ñu nekk ci milieu mhm. business bi donc mën naa ne kooku mooy waay bi gudd na trop na ngeen jégal ma de mais yaa ay jeunes mi ngi noonu Pape Ousmane xanaa dama lay bàyyi rek laata may ñëwaat ci wàllu li nga xamante ni moom mooy production bi muy def nga ñëwaat ak moom ci musique bi bien sûr euh, non boo dégloo li sax mhm. euh, ku ku tayaloon wala ku jàpp ni live bi dafa yomb da ngay ñëw am li nga bëgg ko dégloo mhm. Mm-hmm. nga am lu mu def ci moom. Mm-hmm. moo tax dafa am solo souvent yéen ñi ngeen di bàyyi xel ci seen i jaar di ko partager avec le mm-hmm. mais man fi ma bëgg a ñëw mooy rupture bi parti basket di génn ban ban ban ban ban way moo déclenché boo koy fàttaliku texte bi mën nañ ko partager boo xam te ni yaa ko composé génne ko xëy na boobu moo moo feeñal waaye bii ci beneen niveau bu bokk rek. ok sportif bi mu doon. donc euh, tout le bu may bari sport xalaat moo digg dinaa nekkaat di. parce que comme nekk nga benn genre boss maa ngi doon xalaat nan laay def pour mën a jàppale next generation mais comme li ma wax si ñëwoon naa fi ay artistes sénégalais ñu commencé def liggéey bu sax Afrique di ko mm. ci laa am ay yeneen artistes nigériens béninois togolais bi jàndee Afrique de l'Ouest bi ñu moom ko en quelque sorte mm. mais ma gis de l'Ouest bi yeneen artistes yi mm. business. sénégalais buzz rek ñu réer ñu fuy. kooku yi ñëw nee nañ da nga di yàq sa wërsëg suñu gisee benn wërsëg rek jéem a dem duñu respecté contrat xamuñu contrat. Mhm. ci lu bëri moo tax ma ne bëgguma di wax lu négatif mais tamit wax des fois dafa baax. pour yéen ñi mhm. est-ce que yaa ngi comprendre man waxuma loo xam ne day yàq. waaw waaw wax xam ne. non pour jàng pour jàng sax déjà waaw pour jàng. siw su ñëwee da nga war a gore gore ci milieu bu ma nekk industrie bu ma nekk moom la ñëpp di wax loyauté moom mooy lépp nit bu la te loolu gis naa ko ci benn artiste dinaa ko wax te xamoo ci benn complexe mooy tig tig du ñu gis mhm. label bu ko signé ba léegi mu nekk label boobu nga def te bu naa paree tikki am na opportunité yu bëri. Mm. mais demul moo tax xoolal ba tey jii moo ne nekk donc loolu benn exemple la boo xam ne ñooñu suñ ko defoon tey jii nii leneen la ñu doon mm. ñoom tit bi ñu doon feeñ. ñoom sama bés bu ñu doon feeñ tey jii artiste suñu si ñëwoon dinañu ubbi buntam ñëpp ci monde bi mais bi te tamit loo xam ne ñu bëri lañu ne bëgg nañ ko may pare su ñëwee rek du ñu xam ne ñu ngi koy ñu mm. te man nag bëggu ma nag lu ñuy pertaan boo xam ne alalu mbooloo la ba nañu su ko comprendre monsieur le préfet la ñu continuer liggéey bi nga bañ a yàqal ñëpp mm. donc si laa euh, dàqal rapport yi ma signé yëpp ñëpp nga dàq ñëpp d'un seul coup te pourtant amoon nañu conseil yu mag dañoo Sorano euh, nañu ko culture Thiès bi gën am doole à travers ñun donc du coup ñoom ñëpp dañoo defoon ne commencé fuy ku aayee dafa ne di ki moom mooy bàpp ñëpp di manque respect équipe bi ñu leen jox man rek la ñu respecté à part kenn te man sama équipe ko ci respecté wul kenn man ñoom ñoo ci parce que maa leen jox autorité donc du coup boo vidéo ñëpp Sénégal yëpp joom bi mu demee noonu yàq na yàqul de jox liggéey machine la ñuy def du nit hmm. da bokk ci programme nga topp bokkoo ci programme yi soo defee ni keneen dañuy jël foofu yóbbu feneen loolu mooy la preuve man ma nekk sénégalais nekk États-Unis sama équipe nekk te comme Sénégal nga te da làkk wolof français nekk en rapport ba nga mën a nekk pont bi nga bëgg yow tant que nekkoo ko kenn mënul servir idée bi comme yow duñ ko bëggee. biñ ko waxee gëmoon nga. gëmoon na man itam tam sama laaj. def sa premier texte dañ bëggoon nga wax ni. bon bi nga demee ba commencé naan pourtant lu war a mën a nekk la. waaw waaw ko matériel. waaw parce que man ni mu demee sama benn rapport américain ah moom laa jàppale ñu signalé ko ñu signalé ko euh, Atlantic Records label bu mag. bu mm-hmm. mu demee waa ji créé. ma d' accord dugg si studio di yóbbu mu ne ma ma ne ma nekk si di di hmm. non ba son. Hmm. son bi moom mu dóor partie bi mu féete. ma ko koo bëgg ma jox ko da nga bëgg ma plug laat benn artiste bi nekk ci monde bi wala mu ne ma nooy yow dóoral la ngay doon ma jël son bi teg ko léegi dafa yàq mais damay toogee samay samay sama oto di déglu musique saa su nekk. ñëw. su ñëwee partie bi dama ko doon fooyee nag di fooy te bàyyi ma xel. naan nag. ah naan la. mama look what they make me do now I gotta kill them everybody soon I used to treat them like my real fucking son but this motherfucking son they fucking soul I boobu nag laa jëlee nag boobu nag <laughs> ba ma ko waxee mm-hmm. mm-hmm. ni a métti. léegi nag bii nag soo déglee partie la ma ne mama xoolal léegi ni ma transformé ni ma ni may def loo quoi. Mm. xam nga ñii jëloon naa leen def leen comme samay doom yor leen comme samay doom jël sama alal dem def ko si ñoom mais ñii ni jaay seen am quoi seen ngor pour lan tubaab moo leen gis wala benn nit moo gis dig leen dara ñu jaay seen ngor léegi nag am nañu war a rey ñoom ñëpp taxaw pour sama culture bi mën a tekki avancé léegi xool leen maa fi nekk maa leen gën a soir maa leen gën a frais maa leen ëpp lyrics maa leen gën a mën son bi loolu la quoi loolu la quoi ba ko bindee mm. ba ma woo sama kii nee na ah am na am naa <laughs> dara am naa dara ñëwal am nga dara. Uh-huh. kaay ñëwal ma ñëw répété ko wax ko ni bindu ma ko sax. ma ñëw répété ñu ne ma nii xool ñu dem studio léegi nii ma ne studio waaw <laughs> ah ma ne gannaaw ñu xam nga coach yomb uh-huh. nekk ci gannaaw naan na lii def na lii mais yow di ko def beneen affaire <laughs> yow comme kenn la quoi kenn bu ngay baax la quoi. waaw kenn nan ngay def. da ngay da ngay manière mu nekk waa ji xam ne woo xoo. Mm-hmm. ni ma ko expliqué. c' était rigolo mais c' était facile quoi. ci laa commencé def lu moo wax. maa ngi diit nag parce que maa ngi ne est ce dox na saa waay yow yow yow doxal la ñu ne ñu si biir ay rapport la. ñu mm-hmm. ci yàgg la ba teg gis bopp yi def nii. gàddu naa ne kooku. gàddu rek ma ne ah ma gën a am confiance. Mhm. dama commencé ëppal nag. mais mhm. maman look what they make me do dama <laughs> gara gara gars yi commencé rek noonu laa génnee sama premier son. loolu kañ la la. balaa yaa daaw. daaw. Mhm. mais tout est passé vite. su ma waxee. da nga daaw daaw 2020 daaw 2020 début janvier. nii ma def nii gaal bi ki ma ko yónnee mu dëgg son bi rek kontaan na ma nañ ko clip nañ ko clip ma ne ko yow est-ce que wóor na mu ne nañ ko clip nañ ko clip bii dox na parce que li nga wax dafa am doole. xamoo sax li nga wax ah mu ñëw ànd ci kii boobu yëpp d'habitude man maay dépensé mais bi yoon moom moo dépensé ndax dafa yàkkam doon clip bi gën mhm. donc man mën naa ne engouement yi ma wër ñoo su ma gis ñu ñaa nekk à l'aise ma ne ah lii mi ngi ci man kon lu ñu wax dëgg la donc loolu la ñu génnee clip bi ñu dugal ko euh, sama page Facebook ma daaw jël si réseaux sociaux yi <laughs> tiit du loxo rek naan tey mhm. mu dee sama waa un million fii en moins de trois jours un million de Facebook un million de vues ma def nii i dawal sama oto sama euh, manager om États-Unis ne ma taal a télé ma ne ko noonu maa ngi dawal muy yóbbu dama yaa ngi télé Rivol TV Rivol TV moom mooy chaîne numéro un bu gën a mag hip hop si monde bi. Rivol mhm. kay ko tu vois gars yi gars yi yóbbu ma gaare ne noonu yu dëgg gars ne ma vidéo bi ma poste ko ci noonu nag laa commencé am fi ma ne non ñii. suñ suñu bëggee ma am un million vues gis nit ñi dox si télé yu gën a mag mm-hmm. donc lii war naa commencé gëm quoi ci laa génne beneen son nag wax de see ëppal nag ma comme nii la wax day bàyyi li ma am yëpp sama bopp ma dugal ko léegi nag bu ma génnee wax de say nag boobu nag moom ma taal dëggantaan biir USA boobu deux mois après laa ko génnee mais li ma wax si son bi man moom bon yaakaar naa sama message la xam nga mooy la sama jaajaa sama jaajaa sama waaw dama ne what they say you will never gonna make it what You will die on the street. Uh, what they say, you will never be, successful. loolu sama jaar-jaar la mais tamit mu tombé tamit dëkk jaar-jaar américain noir yu bëri na. Mm. parce que tey jii nii su ma nee what they say, you will never gonna make it mooy doo mës a tekki lu gaa yi waxoon. waaw ah. moom mooy what they say lu gars yi waxoon doo mës a tekki parce que ñu ngi nii léegi maa ngi kontaan. Mm-hmm. ñu ne ma ne lu gars yi waxoon nee di nga dee balaa nga yegg fi nga jëm man loolu ko doon digg may nekk xale nee nañ ma doo balaa soo koy da dee. mystique bi dañ ma doon dem wax lu nekk ku wax man ñu ma ne da fen yàlla moo fi nekk baal ma moo fi nekk moo fi mën damay dund te noonu laa dundee ba egg fu ma yegg nii donc what I say nee doo mës a am diplôme maa ngi ñu may jox ay prophète man prophète ci man mooy diplôme xam nga what I say doo doo mën doo mës a riche war laa ko sànni wala fu ma ah liggéey ci li ñuul est donc loolu bu ma ko waxee nag mu nekk réalité américain noir yi parce que américain noir yi soo amee vingt ans da ngay célébrer. waaw parce que dañu xam ne gaaw. Mhm. foofu ghetto la dafa métti. ñu bëri du ñu yegg âge boobu du ñu yegg trente ans du ñu yegg vingt ans donc bu ma defee message boobu ñu ngi ci seen bopp. son bi dëkk mu ngi toj mbedd yi man xaw ma ko. parce que man très fermé quoi. donc xaw ma ko man maa ñëw benn corona ñëw. Mm. ñëpp tëju lu ñuy mu ne ok ma dëgg di gërëm Instagram live moom mooy toj man dama ne bàyyi ma dugg Instagram live du ko. loolu moo nekk xam naa Instagram nu mu mel dama am fenn man dama ñëw rek taal live gis ñu dox xaw ma may gis ay nit yi. nit rek hmm. ma commencé wax gars yi di reere dinañ koy waaye dafa neex de xam nga mais kii bi Sénégal ak laa la quoi déwén ba si yàgg rek gis kii am na ñu waroon demandé ay appel man waa lii la la ñu ne ma jëlal appel yi jëlal appel yi ma ne ma jël appel ñu ne fii ngay bës fii ngay bës ma ne ngaa ko waale jàppale ma rek xam nga rek gars yi ma fii ngay bës fii ci baax yaa ngi soog di yëngal mu ba taxaw ne ah. léegi nag sama musique commencé di dox nag. léegi daal ci caaxaan boobu noonu. dégg nga tey affaire bi ay nit ñoo koy gis. ñu gis ay kër di def nii di def nii. nit ñi di bind. ma ne waa gis vues di jóg. ma ne lii neex na rek. rek ci laa commencé ne ma def compétition léegi jigéen bu yee boppam na ñëw dugg. su duggee ba teg sama musique sànni xaalis bi ku gagné ñu jox ko lii gars yi est ce que bëgg nga gis ni kii Sénégalais yu bëri nañ fa. gars yi di rey seen bopp. ah bu ñu paree live bi sama follow yi yokk man est ce que amoon naa seen i follow. mun naa ay 4000 follow laa moom yoon même pas 24 heures maa ngi si 100000 follow. ma ne ah nii neex na jaam yi da ngay rek ngeen génne. ñu naan nga laa commencé def live bi nag. Mm. def live bi gars yi ko organiser sama équipe gis ko ñu gën ko commencé def loo xam ne dañuy invité ay artistes Sénégal mooy sama rêve moom. Euh, ñuy wax li xew parce que man je préfère andi ñu nekk ci route bi. ñu nekk ci dëgg parce que industrie bi soo naan seetaan doo mës a am li nga bëgg. bi ñoom dañuy jaay. dañuy jaay lépp lu ñuy wax pour càmm la pour jënd la. mais ñoom lépp lañ lay wax ñoom lu ñuy nëbb. Mm-hmm. ma commencé invité ñooñu ñuy wax ma may opportunité Sénégalais africains ñeneen. ñan la ñooñu yan artistes sénégalais yow loolu opportunité yow mosoon jël ci sa laaj bi. Enzo jamono Enzo jamono invité naa ko foofu noonu. invité naa tam boy Thiès bi nu mu tudd Sankor sax. Hmm. am na benn boy Thiès bi Taï Gisken. ah ok invité naa ko Aki. ñoom ñëpp dafa naan ay tournée ci ñoom ñëpp. dafa am ñoom Omzo Omzo Jambaloo ah non Omzo Dollar. ñoom ñëpp dafa naan ay tournée fii nii donc dama doon invité yeneen artistes yoo xam ne siw ñu siw boobu noonu. Hmm. dinañ defal temps gars yi dinañ xam léegi américain yi di dugg di poser question bi naan ah.

ci laa commencé indi nag ay artistes yi nga xam ne gars yi posé nañ question ñu ngi nii ñu doon prison la ñu nekk yaa xam ne ñu ngi ci milieu gang bi. ñu ngi posé ay questions gars yi tamit donc noonu la ñu def affaire bi am ampleur ba léegi nag daan woon laa ko def ci anglais bi parce que nekk à l'aise. te moom la gars yi commencé ma ne benn waay dugg ne ma nii boo day seey ma ne ko nii ma ne ma benn waay la boo xam ne il faut nga invité ko ma ne ko kan moo koy invité la donc boobu baax na woon gars gaa yi non oh! ci la ma kaane bi yëkkati nag bu baax la dem ma def ma seen bopp nag. léegi bañ ma bañ ma nommé porte parole boo xam ne moom mooy buntu culture bi entre Afrique ak États-Unis ci ma jox cër bu mat nag Sénégalais moom fuuf ma ne xaaral ma commencé olof bi waaye ñu dem. ma leen nekkaat mën naa leen jënd jaay yi na neex quoi mu nekk lu neex gars yi yu bëri ñu may wane ma foog siw nga fi mais doo mënul woon. Mm-hmm. dama ne ok gannaaw bàyyi ma ñëw rek. bu ko defoon li ñu fi fekkee mooy loolu. ba ma ñëwee gis ni kii. waaw effectivement gars yi gëm nañ ma quoi. léegi nag sama mbokku mbokku gis ni kii gëm nañ ko affaire bi. Mm-hmm. waaw bu ma ñibbisee ñoom tamit gaañ jël ma tamit def ma seen doom. donc maa ngi dugg si plateforme bi gën a màgg. Mm-hmm. ci la ñu nekk nii bii mooy deuxième édition bi deuxième tournée bi. tu vois naa ne ñoom man lii mooy sama job chaque année jéem a wane culture bi fii la ñuy ñëw jël image gën a nice gën a positif wala di nga am ay plateau télé gars yi contraband yi yaakaar nañu. yaakaar nañu gars yi moom mooy loolu ñu ngi leen wane ay góor ak ñoom seen. exactement daal beeg ñàkk doom waaw loolu yaakaar ndox beeg feebar beeg yeneen kese parce que loolu la ñu leen wax loolu la ñu leen jaay mm-hmm. donc maa ngi nii dama koy xeex différemment bu ma nekk le micro bi naan révolution je préfère montrer en image comme ñoom bi ñuy jaayee image te mosuñu wax ñu xeesal mosuñu wax ñu teg cheveux doo dëgg ba tubaab la ne teg a cheveux xeesalal pour ñu accepter du bu ma soo waxee dañuy utiliser image yow da nga koy xeeb da ngay dem da ngay seet seet ba xeeb sa bopp ba loolu koddi la ba commencé def yomb lu ñu bëgg a def. mais je préfère man sama liggéey wax image wax à la place de la personne que je suis. non c' est important. man yàlla xam naa ne bu ñu ko topp waa ji mën na ci def cinq heures de temps. macha allah fu mu duggee daal ñu am ci surprise yi également. am solo léegi wax laataa ñu ne ci surprise jox ma li ma xool. ah Tola bi ma ne ko Tola bi. voilà ci dollar yi nga wax mais man li ma bëgg a wax mooy léegi-léegi da nga wax ay lu am solo. nee nga foofu noonu dañ leen jaay li nga xamante ne moom mooy image. jaay la li nga xamante ne moom mooy rêve yow tey nga ñëw ci plateau bi teg fi lu mel nii. waaw di góor ñi jeunes rappeurs yi nga xamante ne ñu ngi ci milieu bi. bëgg nañ ci lii yow tamit est-ce que nekkoo en revanche di leen jaay li nga xamante ne moom mooy rêve boobu loolu la ñuy wax. waaw kay jaayal rek rek lii nii ñoom tamit su ko gisee war nañu mën a dem artistique bi mën na jógee fii nii. Mhm. voyage dem pour am complexe parce que tamit côté bu ma neex mhm. dañuy nekk fi toj am public am lépp. Mhm. ñu dem dëkk tugal rek xaw tey soo xeebee sax dañuy xeeb dem xeeb soo demee looy def may intégré ko duggantal ak ñoom. xamal ñu ngi defee xam nga bu pare fàttali fi nga jógee tuuti. nga index wala ñaar boo ko wax nee dëkk boo dem. fekk ñu ngi di def tànku neen da ngay def tànku neen ñu ngi di fekk benn tànk bu ma jaay ni quoi am na rek. <laughs> yaa ngi donc moom la moom la intégration. donc li ñuy mel ni lu ko laal la Sénégal nag moo ko gañe te ndaw la ci lu ñuy génnee. Mm. parce que li ñuy dépensé moo moo raw. Mm. donc bu la leen dikkee su ñu gëmee seen bopp. Mm. te ñu bañ a déglu encore public bi lay ne non ñun ay sénégalais lañu booy xoolal ulma ay kaana ay wax

Yo, it's your boy YBE. This is for you. You hear me? Yeah, Friday back in my day. Look at me sideways while you eat my rap name. I got beds every day. All this whole gotta get paid. I got beds every day. All this whole gotta get paid. I can never lose. It's not what I do. Get chains on my neck. Too much my pocket attitude. Heavy thing on my wrist. Check your pocket, you and shit. You can bitch me, you a bitch. Get off my dick, you a snitch. You ain't loyal, you can sit. On my table, you can eat. I blow for you, then I fuck you, bitch. All you This is lying. He ain't real. I am real. He ain't oh oh oh my, God. Why they put so much juju on me? Oh my God. All this nigga rest in peace. Oh my God. Do I need to carry my peace? Oh my my God. Oh my God. Why they put so much juju on me? Oh my God. All this nigga rest in peace. Oh my God. Do I need to carry my peas? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my <laughs> god. Yeah, it's your boy YBE. I know what <laughs> time it is. Let's get it. I'm not a video maker. I love it. Oh my god. Oh my god. Yeah, exactly. Exactly. Exactly. Ay, mi ngi noonu genre ñu Mansour gi moom xam naa dinañu télé moom étonné. Yii, doy na waa. Jot nañ ci dose bi. Jël nañ seen wàll ci li nga xamante ni moom mooy dose mais Pape Ousmane dañ fi am rappeur, am fi beatmaker. am fi koo xamante ne tamit kenn xamul fu mu féete waaye moom mi ngi ci ginnaaw. parce que dëgg na ñoom ñëpp feeñal nañu. ñoom ñoom ñëpp feeñal nañu. non mais sax gis naa ne bu ci conseil yi xam naa ne foofu la ñuy jeexalee ak tournée yi. très rapidement waaw. Euh, c' est quoi le message déjà ak booy def euh, euh, nu ñu ko waxee le point ci fi nga jot a jaar yëpp est ce que public bi répondre nañu est ce que vous avez le sentiment que li ngay def ngay consommer globalement sa ñëw Sénégal ak léegi. noo gisee noo gisee noo gisee en tout cas sa sa prestation naka la ko public bi. ak accueillir. extraordinaire parce que kii làkk anglais. Mhm. des fois su ñu ñëwal Sénégal da nga ne ban dëkk la francophone euh, dëgg la ñu anglais doo comprendre man moo tax bu ma ñëwee daaw dama ñëwoon rek pour xool di nga kumba bu ma gisee. booy yi ñu doon tëbëy di wëy di répondre sama son. comme ni nga defee nii Omar parce que man sama son dafay tëb mu gën a sama mm-hmm. samay samay euh, samay samay refrain. Mm-hmm. damay koy joxe facilité pour ñu mën ko téye. Mm-hmm. pour mu mën ñu mën ko wéy gis naa dégg Sénégalais répondre bu ma gisee gars yi dañu doon xaroo ba ci village yi imagine ay ñoom village yi man mii dëkk Casamance mosuma xam ne existé na. ñoom Koubalang. Koubalang dem ko fu gars di mbëkk mur gars yi di wëy son yi. ay joolaa xam nga ma ne non lii mënul nekk. damay toog si sel ku gis image da ngay xam ne man dépassé na damay tax def ni lii nga ne mënul nekk. donc du coup avec bu extraordinaire mu jox ma motivation moo tax mu deuxième bi di am nii. Mhm. maa ngi leen jógee naa Mbour léegi nii. def fa concert. mais ku gis image xam ne kii les boys sont vraiment branchés te loolu nag moo ma tax a jóg pour wan américain di kii xam nañu. xam mhm. nañu voilà des jeunes branchés qui message bi le seul message. bu may joxee mooy. wax naa ko sànq culture américaine bi laay andi fii. ñu fi nekk bi gis di jàng. opportunité parce que tey su ma àndee benn rapport américain wala man ma ñëw. Mm. may côtoyer ay artistes fi nekk dañuy gis dañuy jàng xam nga ñu ne euh, théorie ak pratique bokkul man pratique laa leen di andi. donc quand je comme ça dama di wax li am. su ñëwee ñu may gis nu may comporté wu sama équipe nu muy comporté dañuy jàng. Uh-huh. su ma ñëwee tam jël samay image di leen di fësal te maa ngi leen di jox opportunité bi mu pour mën a andi ouverture d'esprit boobu am. c'est important bëgg naa nga wax ak ñoom ah, en mhm. anglais. Mhm. dafa ñu résumé benn résumé bu gàtt li ñu jot a waxtaanee fii. ok li ñu la jot a laaj nga wax leen ko en anglais. wax li nga jot a defee bi nga ñëwee Sénégal et tout ak le message. ok so it's your boy YD all the way from Washington DC so I'm here in Senegal West Africa so they invite me here to talk about the culture here in the US so I'm the I'm a Senegalese I was born and raised here but I grew up over there in Washington DC so now seeing an African. Like, you know, me coming from here, this country, this city, being in the US, doing the rap US, and you know, me popping over there is a big deal for everybody, and it's a big deal to me too because it's a dream becoming true. So they asked me a lot of questions about what's going on in the US, and they asked me about a lot of questions about how I made this thing happen. So you know, that's why I'm here in this TV called uh, Equivox TV in Senegal. And at the same time, you know, they asked me a lot of questions because I was a basketball player, from basketball player to a producer, uh, to a producer to a rapper. So it's a big deal. It's a long way. You know, I have a lot of story to tell. And uh, now I'm doing a lot of shows here in Senegal. They just asking me what is the message behind everything I'm doing. And the message is I want to be the bridge from my African people to you guys from the US. I want all my black people to stand as one. I want to break all the border, all the things that you know block us by knowing each other, dealing each other. This is all love. Hip hop is a culture, and wherever you go, you're gonna find out that you know we have a strong, young, smart community who just asks about like to know what's going on, and we're gonna show them what's going on. You better follow me IYB, I'm here to ay ca mi ngi noonu Pape Ousmane tey nag waxoon nañ leen ko neewoon nañ leen plateau bi gan bu mag lañ ci dalal ndaanaan la artiste rappeur bu mag a mag boo xamante ni nee naa leen kenn dootu ko présenté sur le plan national comme sur le plan international tey jii nag moom lañ dalaloon ci suñu biir plateau bis ni ki tey ñi doon waxtaanee domaine li nga xamante ne moom mooy culture mm. Pape Ousmane ma bàyyi la rek nga jeexal tàggatoo ak suñu mbokk yi ñaanal carrière boo xamante ni fi nga bëgg mu yegg mu raw sa njort euh, di wax ni fierté nga boo xamante ni ñun dañ ko yëg en tant que sénégalais te xam nañ ni mën nga génnee lu ëpp li ngay joxe nii te yëpp Sénégal moo ci siggee pour un peu partout dans te xam naa ni du yàgg dara yow ak euh, Badji également dina am benn featuring mm-hmm. di ngeen liggéey loolu moom wér na parce que depuis bi ngeen nekk xale la donc ñu ngi lay gërëm di la sant surtout ñu nga bàyyee sa temps ñu ànd ak ñun ci matinée bi en bi mhm. euh, nga xam ne xëy na bëggoon nañoo ñëw yàlla def. Euh, waaw jot gi mayu ren bi ñoom bu baax di wax nii ah. ginnaaw mhm. concert bi on aura l'occasion incha allah pourquoi yeneen i jamono defaat mhm. a fasal li nga xam ne mu ngi koy def en tout cas ñu ngi am na solo lool Pape Ousmane xanaa rek ki ñu bàyyi ki nga xamante ne moo nekkoon suñu ndaanante ci biir plateau bi waaye bi i nga tàggatoo ak suñu mbokk internet yi. di leen très très professionnel ça je le dis ku ñëw seen émission du du jaaxle te dama may ma mel ma mel ni ma mel peut-être que sama histoire gisee bu gudd sa wax ju bëri sax nga dama ci poussé na ma may euh, seen euh, internautes en même temps euh, di invité ñëpp ñu topp ñu mun nañu follow Instagram YBE officiel donc pour gis vraiment liggéey bi ñuy liggéey pour fësal culture Sénégal bi ak pour fësal tamit culture Amérique bi mooy réalité bi di fa am. Mm-hmm. en même temps tamit ñu conseil yi nga xam ni Thiès war na fa euh, dem euh, euh, le 18 décembre war nañu dem tamit Mboro le 23 décembre war nañu dem Sédhiou le 25 décembre Ziguinchor le 28 Dakar le 29 tamit du ma quitté tant que tey tey du ma remercier sama sama game bi ma am fii États-Unis ñoo xam ne ñoom tey ñoom ñooy protégé ñooy def lépp lu ma dund donc shout out to Ranch all the way from Washington DC and Freeman nigga nine million we got you and the world don't know you brother ay mu ngi noonu <laughs> am na solo loolu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Pape Ousmane Cissé aussi di leen remercier di remercier équipe bi nga xamante ne moom nga àndaloon euh, ci suñu biir plateau di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllu régi bi di jaajëfal suñu caméraman yi ñun nag di la jox di daje dig daje léegi léegi ci seen biir émission seen cas <laughs>